Ah, ba nga xam ne mooy décider euh, suite yi ñuy jox rapport yi euh, ñëpp xam nañ ne Covid bi ñu si bëri niñ ko yoree yorunu maa tey la yorunu naa ci profito la. Mansour rapport boobule DAGE yi ak directeur généraux yi la ñu ca tudd waaye ndax agent yooyu mën nañu def loo xamante ne seen ay ministre amuñu amuñ permission ministre yi. non loolu mënut a nekk xam nga DAGE nag fi muy positionné xadi ci ministère euh, dafa am lourde responsabilité ci wàllu nu ñuy jëfandikoo xaalis. mais Moundiaye Cissé dafa tënk wax ci bu fekkee dañuy am rapport chaque année te du am benn sanction parce que ñii doon def lii bu ñu xamoon ni ay sanction dina leen ci fekk duñ ko def mais manque de respect aussi bi nga xam ni moom lu ñu am seen diggante ak sénégalais yi mm-hmm. xam nga jamono covid bi bi ñu man soo Faye mu yor lépp lu jëm ci wàllu séddale mm-hmm. euh, li ñuy dimbalee nit ñi parce que dañu leen a tënkoon ci wàllu déplacement jóge région ak région leen tënkoon ci wàllu déplacement liggéeyu guddi ñu indi couvre mm-hmm. ñoo xam ne kon ñii am na lu ñu mérito ci wàllu ndimbal ak jàppale ni ñu doon fréquenté marché yi demeetul noonu booy dox te takkoo masque ñu arrêté la jël am xaalis bu ñu jëlee ci askan wi ñu ni kon nañ am ndimbal bu ñu leen jagleel mais Mansour Faye dafa annoncé benn pack alimentaire mhm. boo xam ne am ceeb am mhm. diw am suukar am saabu am macaroni mais rare néew na loolu ay nit yu jot pack bi de façon comme nañu ko annoncé woon mhm. pack bi toujours dama ko doon faral di fàttali mu am ay jalgati yu amoon ci ni ñu ko doon waxee ci wàllu ceeb bi bayoon na coow. ba am ñenn ci ay importateur ceeb yu ñu ci tuddoon. kon tey bu ñu ñëwee bu ëgsiwaat fii nekk te dafa laal ay ministères yu bëri daaj bi moom la ñuy laaj pour mu def compte. mais mënut a def te ministère bi yëgu ko moi je pense nag bu ñu Sénégal tollee foofu. ñu dajale xaalis président Macky dafa am lu mu soxla ci wàllu xaalis ñu dajale xaalis boobu jox ko ko am lu ñu ko jàppandala ci wàllu pouvoir pour mu doxale ko opposition bi ñépp nangul ko ak wooteem ba dem palais de la république mhm. jàpp naa ni kon képp koo xam ne am nga jalgati goo def ci xaalis boobu dañ laa war a teg ay sanctions yu diis parce que non seulement respecté wu ñu askan wi mhm. seen yoon nekku ci covid bi mais mënuñu transformer covid benn at comme sida nga xam ne ñi muy dund moo ëpp ñu muy rey mhm. euh, xanaa bi yoon Macky lu du ci teg cooncoom laa fokk parce que bii moom ci ak tayeef la tegu goo xamante ni bii et pourtant bi ñuy joxe rapport yi pourtant soldats yi ko jiite woon signalé woon nañu ay manquement signalé woon nañu yoo xam ne jaaxaloon na leen ci mais Cour des comptes ñu confirmé leen kon li mu njaay si sa moom la Sénégalais yépp yi demandé dafa war a am ay sanctions parce que amuñu benn sañ-sañu lekk xaalisu askan wi ci tey. Euh, rawatina ni Léopold ñu bari du leen bett ndax doon nañ fi tudd corona business. ñu jàpp ñu bari jàppoon ni xaalis boobu ñu ngi ko ciy dugal waaye benn cercle rek euh, la ñu nar a enrichir. waaw benn cercle rek lay mën a doon mais tu sais au Sénégal on se le dit nag euh, euh, ci dëgg dëgg parce que la plupart du temps dans ce pays là lu ñuy euh, détourner xaalis dafa bëri même dans les même même au sein de l'État même au sein également des institutions ak yeneen dafa bëri ay détournement mais pour un pays mu mun a nekk dans une ligne boo xam ne ne transversale boo xam ne ne ku ci nekk mën na ci euh, euh, jariñu mooy maanaam xaalis gi nay jaar yoon maanaam xaalis gi mënut a dugg ci benn poste duñ ko saytu parce que am na fi ay ñoo xam ne ne ils sont pro ils sont l' appareil d' état mm-hmm. ñoo xam ne ne ñi ngi def yenn luubal yoo xam ne ni nit ñi dañ koy xam mais à la limite qu'est-ce qui se passe kenn du leen corriger kenn du leen yóbbu à la kenn du leen yóbbu au tribunal pour mun leen juger par rapport ak xaalis bi naka lañ ko utiliser mm-hmm. parce que c' est l' argent du pays l' du pays il faut loo xam ne ne dañ ko koy sacraliser mhm. c'est-à-dire que loo xam ne ni jox nañ la ko ñu ne leen lii liggéey ci da cee war a liggéey nguur gi nag war naa mën a def képp ku mu jox xaalis mu topp la pour xool xaalis ba fan la jógee parce que xaalisu réew mi la du xaalisu Macky Sall du xaalisu keneen. Mhm. donc il faudrait que ñu delloo le vrais paramètres yi nga xam ne ne ci jamonoy Senghor boo sàccee même un franc moom yaa nga ca kaso ba. ca jamonoy tamit Abdou Diouf tamit noonu la woon yaa nga ca kaso ka mais soo gisee nag dafa am benn laxisme cest à di bàyyi ni ñi gis ne ñuy détourné ñu leen di bàyyi ñu dem a xaalis ka bon que ñii ñëw war leen wuutu tamit ñoom it noonu lañ koy gisee il faut que Sénégal ki nga xam ne mooy jiitu réew mi ñi nga xam ñoo nekk ci appareil d'état bi bu ñu may kenn mu lekk un franc au Sénégal parce que en réalité foofu la ñu tubaab yi romb parce que kenn du ñal nangoo jël un franc parce que xam nañ ne boo ko jëlee di nga ko goxite te di nga tëddi kaso. mais maintenant boo ko jëlee ba pare ñu yóbbu la kaso pour deux jours trois jours ñu yeewi la nga dem sa yoon yow finalement yaa ngi ak say milliards mais li nga tëdd kaso nee nga lii du dara ci man. Mhm. Euh, Léopold ñu waxaat ci euh, contenu des médias yi ñu euh, tëj li ni mel nag njeexital bu bon lay am ci démocratie waaye itam ci wàllu social bu ñu sukkandikoo ci Alioune Tine mu bokk ci ñuy xeex ngir ñu sàmm ak ak yelleefu doomu aadama muy li ñi nekk ci nguur gi eh, ne dañoo war a soppi doxalin li ni mel nag eh, ñu eh, bàyyi ko muy fitna gi ñuy teg des médias bu ko moyul rek dinañu indi ay jafe-jafe ndax des médias alalu askan wi la ñu ondu ci ak mu àddu ci micro Fabrice Ngema média ñi nga xam ne ñooy déglu Zik FM ñoo ko moom ñi nga xam ne ñooy seetaan télévision Sen TV di fa intervenir ñoo ko moom des ñi nga xam ne dañuy lire tribune ñoo ko moom donc des du affaire Bougane Gueye Dany des médias dafa nekk benn ligne éditoriale boo xam ne am na ñoo xam ne ñoom ñoo koy suivre am na benn opinion boo xam ne moo koy suivre te bari nañu te des médias euh, ay ñi fay liggéey ay njaboot lañ tey bu fekkee ne euh, li nga xam ne mooy décision bi nga xam ne fisc bi jël na ko ah dina teg ci mbedd mi ñoo xam ne ñii ay père de famille lañ ay ay mère de famille lañ donc euh, décision bi nga xam ne dañ koy jël li nga xam ne li muy yàq dafay bëri dafa yàq diversité ci mbirum opinion ça c'est extrêmement important ñu xool ko dafa yàq aussi ci démocratie dafa yàq aussi dans le domaine social kon nag ñun ñu ngi interpellé waat ñi nga xam ne ñooy fisc bi ñu xoolaat seen situation bu and gësëm itam ñu ngi nakaarlu li dal ay liggéeykatu de médias ginnaaw ba ñu tëjee kont yi ba tey mënuñoo jot seen i ay euh, payoor ñuy feddali kon euh, seen ji euh, seen jàppale ci liggéeykat yooyu le rawatina jamono ji ñu nekk nga xamante ni ci wàllu kon daanaka ñëpp ñoom ñoo am jafe-jafe àndub gësëm di woo service fiscaux yi ngir ñu gën a dawal yërmande waa itam gën a responsable di woo nguurub Sénégal itam ci mu soppi doxalin Léopold muy vague de soutien yi nga xamante xamante ñu ngi ko doon wax ni ki démb daanaka fépp la ñuy ñaawloo li ñu teg groupe des médias. man war a am. Mm-hmm. parce que en réalité d' entreprise en entreprise wala d' ak yeneen euh, euh, corps de contrôle ak yeneen ak yeneen yi war nañoo mun a di féewulu war ñu mun a féewulu li ñu war a def mooy li ñu def nii mooy li nga xam ne nii gis nañ ne que ñun. peut-être am na yenn gu diis bu ñu teg suñu mbagg ñoom tamit ñu ñëw nga xam ne di ñu won tamit seen cofeel ci li nga xam ne ni moom lañ ñu teg loolu mooy wane ne que d'entreprise en entreprise mun nañu di booloo léeg-léeg am doole goo xam ne ni suñ la bëggee teg loo xam ne ni métital ña cay jug di wax ak ñi ciy jug tamit di ci naqarlu ñu doon ñu bëree bari bëri ñooñu bu ñu ñëwee euh, jàppale li nga xam ne ne moo di entreprise boobule euh, dañ koy may kanam te dañ koy may it mu am euh, courage muy continuer si li nga xam ne moom lay liggéey parce que jusqu'ici amul dara loo xam ne ne lu ñu def loo xam ne on nous le reproche amul dara loo xam ne ni on peut nous le reprocher mmh. parce que peut-être que suñu ligne éditoriale moo leen di déranger Uh-huh. waaw peut-être que loolu la loolu moo leen di déranger alors on s'est dit ne peut-être qu'on va chercher des arguments yoo xam ne ni pour ñu mun leen a fagaagal ñu delloo si leen ci la ñu nekkoon uh-huh. mais loolu dañuy juum parce que en réalité ce qui se passe nii au contraire dañ koy jéem a yóbbu ci kanam mu gën a am euh, li nga xam ne mooy dayoo uh-huh. donc parce que ku am sa entreprise da ngay bëgg muy am dayoo donc munoo ñëw taxaw nag nga naan da ngay tëj ay ay ay ay li nga xam ne compte mais di nga tëj fii ba suba fii ba ajak jak du tax nit ñi taxaw donc euh, defe naa ni état bi dafa war a xoolaat ay boppam ak tax ak taxaw gi muy taxaw parce que ñun li ci bëri ñi ngi jege élection locale yi mhm. donc foofu lañ koy méngalee dañuy ne peut-être que élection yee jege looloo tax ñuy def yan yi mhm. te ñoom ñooy may nit ñi li ñuy wax ne que affaire élection la donc nañu xoolaat seen bopp bu baax a baax te xam ne ne que soo jëlee ay juróom téeméer yoo xam ne ne doomu aadama yoo xam ne ñu ngi ciy suturlu nga jël leen dugal leen ci guutu yàlla moom du la ko may mu euh, ngoog ci mbirum D-Média la ñuy des ba tey ndax euh, wax ci sondage Kantar bi nga xamante ne ñu ngi koy def ci lu tolloog juróom-ñetti réewu Afrique euh, la ca génn ci résultat moo di Zik FM ak Sen TV ñoom ñooy kon nit ñi gën a seetaan fii ci Sénégal sondage boobu leen ñu def ci diirub septembre 2021 jàpp mai 2022 groupe de presse bi nga xamante ne groupe Sénégal moom la teg bët bëggu ko fagagal ndax nguut ngu njiit li ci kujje gi la bokk ñu ondu ci ak Fatulaye Mbaye Diop dellu si ci résultat sondage boobule. télévision Sen TV nekk nag ci ay jafe-jafe waaye nag terewul ñoom ñu ngi garder seen honneur rek sur le plan médiatique euh, ci dëkku Afrique yi rawatina fii ci Sénégal Kantar mi nga xam ne nag ab institut de données ak wàllu étude yoo xam ne dañ koy teg nag ci wàllu preuve yu leer ñoom nag génnee ay résultats annuels yu Africascope 2021 euh, 2022 euh, ci études yooyu la ñu daal di wane ne Zik FM ak Sen TV ñoom ñoo daal di jiitu ci station yi nga xamante ne ak télévision yi fii ci Sénégal ci ñi ñu gën a seetaan tey it bokk ci ñett yi nga xamante ne eh, fii ci Afrique ñoom la ñu gën a eh, seetaan yi tamit étude bi eh, daal di couvrir juróom-ñetti dëkk ci Afrique di Burkina.